xalaas ma waaru kàddu yi may waaj a yëkkati ku ko dégg di nga ni xalaas mais laataa ma ko yëkkati damay mastawu damay mastawu encore une fois euh, waa Sénégal yëpp waa Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp rawatina waa Mbuur bu ma nee du ma ni waa Mbour dong nag parce que bu ma yemee ci mbuur day mel ni mbir mi waa Mbour dong la concerné waaye Sénégal képp la concerné di li nga xamante ni moo di gaal gi suux ba gis nga fanweeri nit ak juróom faatoon di nañ ci ñoo xamante ni heure bu nu xëyee ñu ni géej gi gëkk na génne na dimanche ba ndege ni nee na ñeent jóge ci ñeent dem ci neuf tey gis nga fi nu tollaat mu nekk loo xamante ni lu yéeme la lu metti la di fanweeri nit ak Euh, euh, ñeent yoo xamante ni nee nañu fi ñu toll ni tembe faatu nan waaw kon nag mbir mi tiis na tiis wi foo ko natt weesu na ko metti na mettit wi foo ko natt weesu na ko àgg nañ ci yàllaay buur nag fi ne waaw àgg nañ ci yàllaay buur waaw àgg nañ ci étape boo xamante ni faw tekkaaral gi mu jeex ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi dëkk bi autorité yi nanu génn wax ci mbir mi mastawu njaboot gi waxtaan ak famille bi waxtaan ak jeunesse bi jéem jàppale jeunesse bi ci beneen fànn bu bokkut ak ñi ngi topp diw dinañ tëj diw dinañ jàpp diw sàcc nangam dinañ jàpp kii dinañ jàpp laa lu waaye lekkal Sénégalais yi di nga ko indi instant bii nii li nu gën a soxla muy suñu problème majeur ñun population bi ñun jeunesse bi li ñu gën a yittewoo mooy jeunesse bi liggéey defar fexe créer emploi entreprise yi bari financement yi bari jeunesse bi liggéey am lu ñu jox seeni mbokk am lu ñu jox seeni waajur ndax maa ngi koy wax daanaka jeunesse bu bari liy tax booy di dagg dëkk géej gi wala booy di di dugg ci loo xamante ni naka noonu la ñii dem ba amatuñu espoir ci seen bopp ni war na noo mën a tekki ci benn métier wala war na mën a tekki ci benn branche boo xam ne ñu ngi koy suivre dem ba amatuñu espoir tax mu jaaral leen nuy sàcc ñii mu jaaral leen ñuy ñuy wax lu dul dëgg ngir am ñii mu jaaral leen ñu jël seen ay kaakaak seen ay dëbbës jël seeni bagage ngir dem tukki donc àgg nañ ci étape boo xamante ni lenn rek rek rek rek rek mooy solution bi mooy gouvernement bi taxaw jàppale jeunesse bi waaye tamit jeune bi ndaw li xam ne moom jeune la tant que amul 40 ans am amam lépp lu mu am ci ak dundam bénéfice la moom ndaw li mu xam ni lu bare bare mu ngi koy xaar ci àddunaam ci ak dundam ndaw li war a xam ni nekkul ni par la force xéewal wi nga xamante ni moom la la yàlla jagleel nga war cee jot deux mille vingt cinq wala deux mille vingt six ci deux mille vingt quatre bii lay ñëw boo yàkkamtee da ngay sonal sa bopp sonal say mbokk te doo noppal sa borom waaye boo nangoo li yàlla dogal noppal sa borom noppal sa bopp doo sonal say mbokk say noon du nu li may wax rek mooy ci biir kër yi ñu baree baree baree bare di ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di également yenn waajur yi yenn gore yi yenn soxna yi yenn ci ay dëkkandoo mag wala rak bu ne ci kër fekk nekk fa ak koo xamante ni yàlla dogal na ni ay moromam am na ci ñu ci jot am dara mus dara moom yàlla dogalagul ci moom am maanaam mu nekk ci état boo xamante ni amagul yow bul ko xas benn yoon ci lenn ci lu jëm ci am amam wala ci lu jëm ci lu moroomam am te moom amu ko doomi diw ji xool ko tabax na nangam doomi diw ji xool ko def na doomi doomi diw ji doomi bu yàggee nit ki da koy sonal da nga koy fatt fatt goo xamante ni génn kër gi rek lay gis dem wuti lu ma am loolu mooy waral des fois bu nu génnee amunu ndax famille boo dugg famille boo dugg famille boo dugg famille boo dugg ci Sénégal lu mu gàtt gàtt gàtt boo toppee meenu meen yaay ja meen wa ba nga dugg ci ay yaayam dem ci ay dem ci ay maamam ci côté yaayam lu mu gàtt gàtt yaa un millionnaire wala benn mbala ñaar ci ñoo xamante ni yàlla ubbil na leen ay buntu wërsëg pourquoi pas ñi récupérer kooku ni ko ciix jàngal ko ni ñuy amee jën mu am jën mu am mu développer dem c'est facile ah oui pourquoi pas ci côté baayam am na ci koo xamante ne am na lu ko yàlla wërsëgal pourquoi pas mu ne ci kooku récupérer ko jàppale ko mu dem mais duñ ko def dañuy jël seen ay téléphone di woote ci kër ga diw daa ñàkk jom ah foofu lay nekk di toog di taxawaalu ci dëkk bi lan moo tax mën te génn liggéey nit nan lay génnee liggéey te amul lu mu liggéey xanaa boo bëggee mu liggéey kay da koy woone ko kaay liggéey ci ñàngam waaye diw moroomam yaa ngi nàngam du nàngam loolu day bonal xol doomu aadama nañu ko bàyyi c'est pas quelque chose boo xamante ne lu jekk la mbaa rafet la na la ko teg ci suuf nit ki am am yàllaa ko yor te saa su soxlaa li nan wërsëg buur la ku numéro agsi nga jot ci day wal day wëlbatiku ndab la loo xamante ni yàllaa koy tibbal ku ko soob saa su jotee mu jox la ko kon bàyyi leen nit yi ngeen di griller di leen sonal di leen bunduxataal xataal bu làmp dugg ci néeg taal làmp nga ñëw fay làmp bi fayoo courant bi xamoo lu muy jar moo tax lan la ki koy fay c'est normal mu fay ko ak lu mën a xew da koy fay ndax ci moom la yàlla jaare lay fay gi nga ko xamante ne moom la ko war a fay bu ko defut dañ foofu yi jële indi ko koy def waaw ah. taalifantuloo bëccëg gii na nga ñeeñee lan bu xanaa du nit ah bu tardé añ duñu ko tibbal ndax lan liggéeyut bu dara xewee duñ ko ko yëgal wala moom lañ koy mujj wax waaw loo ci wax moom koo xam ne boo ko waxee du la jox dërëm cim koo xam ne tekkiwul dara mënulaa jëriñ tus loo ko ci teel a wax di sonal sa bopp dalay xamal siiwal la ndax lan pourtant ci kër gi la bokk war na mën a yëg li xew ci kër gi lépp de A à Z waaw yëgal ko c'est normal yëgal ko parce que ci kër gi la bokk ci kër gi la bokk dafa war a yëg waaye duñ la yëgal bu xew amee bagage wool diw lu ñuy yëkkati wóol eh na ñëw yëkkati lii cimp ñàkk jom def fi tara loolu donc amut benn njariñ kii moo bon ka yor million wala ka yor ay mille mille di leen jox ay dix mille ak vingt mille ak trente mille moom kenn du ko tudd ci loolu waaye sàmba su góor gay yi mi ni ko jàppe ki nu jàppe am sàmba su gay lan la mooy def loolu yépp ndax lan ndax lan liggéeyut ah bu ñuy yónni moom la ñuy yónni bu lul réer ci kër gi moom la ñuy jiiñ xoolal loolu ah jabari gaa yi liggéey yépp ko duñu ko may añ duñu ko fóotal mooy génn ay yére boppam fóotal ko boppam ay jigéenam nekk ci biir kër gi di ay rakkam yu jigéen wala ay magam yu jigéen ah wala ay ay ay ay ay ay jabari magam ne ci kër gi ngeen koy bàyyi muy fóotal boppam ndax lan ndax lan c'est parce que amul liggéeyul ñaaw na bu yàlla dogalee nag nga am soxna liggéeyoo kenn rek moo la ci mën a génne muy sa soxna wallaay asim wallaay asim wallahi asim xëy na yàllaa weddi xëy na yàllaa indi ay dogalam waaye man ay jamono toog naa ak sama soxna si bërëb boo xamante ni juróomi dërëm yi nu diw sax sunu mburu amuñu ko parce que liggéeyu ma woon waaye li ma sauvé mooy ña ma dëkkaloon ñoom ci seen jëmmi bopp wunul ma ni yow liggéeyoo wunul ma ni da ñàkk jom wunul ma ni dangaa ngaa lii wunul ma ni dangaa laa ndax samay frère laa dëkkal ñu baax ci man mais exemple laay joxe rek dangay ngay toll ci étape boo xamante ni yow ndaw li dara doo ko am sa soxna toog ci kër gi ay moroomi soxnaam di am ay cheveux ñii di am ay takkaay ñii lu xew ñu jënd ñii bokk ci ay natt yu riche yow sa soxna amul mënu ko sax xalaatu ko ndax yow boroom këram amoo ko sa soxna si nag moo la ci mën a génne nim la ciy génne mooy mu gëm ni yàllaa la teg lii mu nangu la waaw avant tout d'abord madame day gëm ni lii am ci yow dal la yàllaa la ko teg mu nangul la ko oyofal la yenn waaye ah, doo ma jox ma jënd doo ma jox lii xoolal kii jëkkëram ji nii jëriñoo ma dara tekki dara ñii ñii est-ce que du yow yaa ko jigut est-ce moo tax bàyyi leen lu tëb walla ku ngeen gis yàlla dogal ci moom ak ñàkk te tegu ko boppam yàllaa ko ko teg ngeen bëgg a jëlaat lépp tegaat ko ko ni ko yaa ko teg sa bopp xoolal loolu ñaari dogal yooyu mu bëgg a nangu dogal ni yàllaa dogal ni man mënagumaa am di benn dogal nga jël beneen dogal tegal ko ko ci kawam ni ko yow yaa yaa def li tax amoo ndax say moroom yaa ngi am mu war a nangu dogal boobu tamit ni ñii de ndekete xamuñu sax ni man li ma war a am yàllaa ma ko war a jox ñoom jàpp nañ ñoom ñoo ma war a jox mu war a nangu ñaari dogal yooyu di war a nangu dogalu génn gis xaritam boo xamante ni ñoom ñaar ñoo fowandoo mu mën na ko fuuf ci njàng mi dàqan ko ci nja gënoon koo aay yàlla dogal moom xaritam baa ngi tabax te moom ci jëmi boppam ak birig mënu koo jënd buy jar ñeent ko ak nangam wala téeméer ak nangam ah. loolu di ab da koy metti ci biir xolam waaye bu gëmee yàlla day xam ni kat àppam moo jutagul ngir mu mën a am birig bay am kër bay am ñu fa dugal kon rekk waaye la famille famille bi encore une fois xoolaat leen ni ngeen di doxalee seen diggante ak ñi nga xamante ni yàlla dogal na ni mën a gunu mën a la gunu seen bopp waaw loolu moom maa ngi koy waxaat di ko waxaat di ko waxaat ci noonu nag laay ànd ak yéen ci xalaas maawaaru bu doy waar boo xamante ni bu nu ko waxee di ngeen ko ne xalaas maawaaru négligence bi nu nemmeeku ci ay hôpital yow yow waajee wax ngay dégg dinaa ko teg léegi nga déglu li waaj wax yow ab hôpital nan nga mën a nekkee yow malaat ñëw nga war koo faj fajoo ko téye sa téléphone naan da ngay sinabak da ngay pour lan di di déglu ay tiktok ak ay xaaral am na ku ne ci biir jàllal ak lan malade bu dikkee yéen yéen a ko war a gën a bëgg ki ko indi daale norm bu nee ciix ci hôpital bi yéen ñi mu fekk ci hôpital bi ndax looloo tax ñi leen di fay looloo tax ngeen di liggéey xam nga des fois doomu aadama day dem ba fàtte li yor teraangaam mu di ko fooye da ngay gis ab chauffeur mu leer na ni yow dawal gi ngay dawal moo tax nga am li nga am tey jii ngay ci patu sa patron soof ñee ñii ñaaka ñaa doo fa pour lan te yow li ngay am di niinal sa ceeb kii fii nga koy jëlee ah yéen ñi nekk ci hôpital yi ak loo fa mën a liggéey man xaw ma lu la fa mën a dugal sama yoon newu ci waaw lu la xaw ma stage nga def xaw loo def man sama yónnewu ci man yooyu yëpp garaawul man yooyu jaar man sama yónnewu ci parce que réew mi duñ doxee noonu nan ànd ak moom ci noonu amul problème xaw ma lu la fa man a dugal mais man li ma lay wax mooy sa diggante ak ñi nga xamante ni ñoom ngay faj nga warmaal leen jox leen seen ak ak seen yelleef tatagal leen jaajëfal leen ouvert tuuti ah waaye lan xaste yuuxu zëngale waaye ñi danoo sonle waaye yow yow dangaa soof ah nit di indi malaatam sax nga koy xas soo toog ba kër ga ba heure bii na te yow li nga war ci li war ci yow sa diggante ak malaat bi doo ko def toog di sinap ah toog di nekk ci ay téléphone bu ñëwee dernier moment ngeen tiit di rëf-rëfee fu ne ngeen di fa jëm nit ki bu amul sax ordonnance ngeen ni duñ ko laal duñ def lii duñ def laa ndax lan yorut xaalis réew mi ñàkk fii musiba la de crime la gaa ñi déglu leen déglu leen góor gi lii tooy na waar. ndax. hôpital bi ñu nekk daal métti na métti goo xam ne gi ci ñun métti na lool bala ngay dugg da ngay dagg tiketu dix mille francs boo demee benn toppatoo duñ la ko topp sama soxna dafaa yóbbu doomam maa moom noo fa nekk di ko toppatoo mais toppatoo bi dara dara baaxu ci dara dara baaxu ci jigéen ñi bañ demee ñu ne war na recevoir war a toppatoo ña nga toog ca biir yor seeni portable di jeu ak di seetaan ay tiktok ak di def ay esthétique koo ci woo mun a la demal seet ci biir am na ku nekk ci biir am na ku nekk ci biir kenn bi ma demee nag ba nga xam ne affaire bi critique na ba xale bi feebar ba nga xam ne metti na ba nekk sukuraat bi ma ñëwee ne leen kaay xool ko bi ma jiitalee ndaw si bi mu ñëwee gis ko dafa tiit dafa tiit ne lii du dara gaz bi mooy monte gaz bi mooy monté ba xale bi ma mucc ci mu euh, wàccub liggéey ci seen kanam lii nag métti na métti goo xam ne lenn doo ko fi jële ñii ñu bàyyi ci hôpital yi ñu nekk fi naan dañuy def ay médecin ca xamuñu dara kenn defu ci stage lu man ñaari at wala benn da nga fii ñëw di fi def balayage balayaas ngay ñëw di ko fi def bala ngaa am six mois ñu dugal la ci biir di la fajloo wala di la pikirloo ñoo ñoonu indil musiba mi nañ leen dàq ñoom ñëpp ci indi fi ay chinois wala ñu indi ay ay turki mais sénégalais yi ñu jox liggéey yi ci senegal dara lañ fi liggéey dañ ñu yàqal rek duñ xëy heure duñ wàcc heure ca li war ci liggéey bi duñu ko def nun nag sonn nan amuñu lu dul lii yéen leen yaakaar nag bu buñ ko fi waxee da ngeen ko mën a jàllale ba nun ñëpp nu mën cee am njëriñ te li ma dal dalu ma man dong keneen ak keneen lay dal nun ñëpp ay jooyandoo da ngay jënd ordonnance ba ñëw indil ko duñ ko teg fu fuñ ko war a teg duñ ko duñ ko utiliser xale bi ñu ko indil wala mag mi ñu ko indil bala ngaa am moom ñaari minute mu dee nga waat sa ordonnance yóbbu ko te lii metti na ordonnance bi xaalis lay jar xaalis bi xamuñu nuñ koy amee ñii ñu fal ñu nekk ci bureau yi ak yi di liggéey nañ xam liñ leen jox ñi di ko liggéey ku ci mënta liggéey ñu dàq la nañ leen dàq indi fi ñeneen ñii liggéeyuñ de rey nit ñi rek la ñuy def rey nit ñi rek. déggal déggal pa bi ni muy waxee ku ko dégg xam ni kii dafa mer dafa mer liggéeyulu liggéeyulu dem na ba naan nañ indi ay chinois wala ñu indi ay ay turki wala ñeneen parce que xam na moo tax paa bi wax loolu c'est parce que dem nañ ba sénégalais yi léegi koo ci joxub liggéey benn fan premier jour oh laa ilaha illallah da nga naan sama waajay jàmbaar kii moo mën a liggéey. man de kii laa yéex a gis ñaari fan noonu weer noonu ñetti weer am na si ñoo xam dañuy dañuy puus cax waa ci bu ma ba ma xëtt ci dañ ciy nekk à cent pour cent ba at après ñuy commencé gim nag commencé nooyal commencé commencé taayeel commencé commencé ndax lan yow liggéey bi ba nga ko amagul danga rey sa bopp lu ne nga daj ko fan fan wang wang ku ne nga woo ko ay yow dimbali ma ci nangam damaa bëgg liggéey nangam damaa bëgg lii damaa bëgg nii ki naa naaka naa sàmbata njaay ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne woo nga ko wax ko ni ko danga bëgg liggéey yàlla sa borom dogal ko ci yow nga war a fonk liggéey bi fonkoo ko lu dul di ko négliger ndax lan donc il est temps que ñu xamaat bu baax a baax ñun lan lañu ak lan lañu am ndax kii bu demee banaan na fi ay turki ñëw ak ay kii kon ça veut dire que ñun sénégalais yi non pas pas sérieux kon ñun sénégalais yi sérieux wuñu sérieux bi nga xamante ni moo war amul ci ñun kon parce que moom dem na banaan nañ indi ñeneen ah sélection bi nañ ko xoolaat ci côté yépp waxuma liggéeyu santé dong peut-être tey waa sante ñoom ñoo feeñ waxuma santé kese mais feneen ak feneen ak feneen transport côté yëpp yëpp yëpp yëpp nañ ko xoolaat nguur gi dimbali ñu encore une fois jublu ci jeunesse bi jublu ci projet yi macha allah ñu ngi liggéey ñu ngi leen di jaajëfal waaw man na du ma buñ topp kenn duñ tibb tànk duñ def duñ topp kenn képp koo xamante ne lekkoon nga xaalisu Sénégal na ko génne yooyu nangam yooyu man duma ci wax du ma ni kenn bu ko def waaye nañu dimbali ci jeunesse bi nañu dimbali ci conscience yi waxtaan ak askan bi dalal seen xel yi ngir ñu mën a toog ci réew mi liggéey mbokk yi maa ngi jégalu ci kàddu gi di leen jox di daje ba suba ak jàmm ak salaam ci xalaas maa